ahousubillahi min aseytaani rajim bismillahi rahmaani rahim inna ibaadi laysa lakk alayhim sultaan walaa wu yaxsimuka min annaas yaa allah barke borom tubaa eh, bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi leen di siyaare tey jiital ci siyaar bi sëriñ tubaa cheikh modul muntaxa yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér eh, di siyaare sëriñ yaafiya bu saal imam bi nga xam ne mooy jëwriñu daayira muxaddamaatul xidma bi nga xam ne mooy saytu jumaa ji ak armeel yi euh, tey jii nag mu mel ne danoo xëyoon ñëwoon fii ci margo bi euh, siyaare si woon euh, waa margo bi ñi nga xam ne ñooy taxawu liggéey bi te bu ñu waxee daayira muxaddamaatul xidma mooy daayira bi nga xam ne mooy saytu jumaa ji ak armeel yi ak margo bi bi ñu ñëwee tam fekk nañ fi sëriñ Fàllu Mbàkke mi nga xam ne euh, mooy jëwriñ ji nga xam ne moo jiite liggéey boobu euh, ànd ak suñu waajur euh, sëriñ Mouhamad Habib Diop fekk fi sëñ seen mi nga xam ne sëñ Mouhamad seen mi nga xam ne moo nekk ci biir margo bi noonu la ñuy wéyale siyaal ci waa daayira bi yëpp nag mu mel ne suñu teewaay itam dafay mel ne dañoo teewal waa diaspora bitim réew yëpp muy diggante Amérique ak Afrique ak Asie ak képp koo xam ne rek daa dégg suñu kàddu muy jóg ci di wane liggéey yi nga xam ne mooy aju ci jumaa ji ak ci daayira bi ak ci margo bi ak ci bàqiya tey nag ñu ñëw fii siyaare si sëñ Fallou euh, ngir buñ ñëwee suñu teewaay dafa mel ni dañ fee teewal waa jasporaa yépp ngir bëgg am rek ay leeral yoo xam ne tamit ak yoo xam ne ñi àndee woon ñun liggéey bi danañ mën a gën a xam ne ñoom Euh, liñ daan jaarale ci seen loxo muy ñëw ci biir daayira Muxaddamaatul Xidma euh, tey jii danañ ci gën a amaat ak dolliku bu baax ci biir liggéey bi ak la ci xew looloo taxoon tey yi ñëwoon doon siyaare euh, ñu gisit ne sëriñ Afi Busal imam kenn ku ne xam na ne biñ màggale ba noppi ñaareel bi dajee biñ mujj am këram woote bu rëy amoon na fa ndax ñi aji ñu bari ñu aji ci bitim réew ci diaspora daje woon nañ këram ngir muy doon yëkkati kàddu yu cant ngërëm ak jaajëfal ñi nga xam ne seen taxawaay ci biir liggéeyu daayira bi ba keroog sax ay kàddu jóg na fa ngir ay yéene yu nga xam ne euh, ñettee woon ci jataay ba fésal nañ ko euh, am na ci jawriñ yoo xam ne fésaloon nañ ne euh, seen xel egg na ci wut ay oto margo yoo xam ne oto corbia yoo xam ne yu moderne lay doon yoo xam ne bépp armeel wala réew yi ci bari gis nañ ne am na ay corbia yoo xam ne ña ngi ko fay am ba keroog secrétaire général bi nga xam ne moo yor daayira bi muy sëriñ Abdou Lahad Moutalib fësal na fa ay kàddu sax wax ne euh, la doon yéene yi bi day mooy li am fa mu karam tey jii bu fa seen kàttan àggoon loolee jum barab yii di dëkkub seexul xadim bi dana ci mànd ak jullit yi nga xam ne ñoom lañ fi indi muy dem ba mën leen a wàcce ci lépp loo xam ne ay farala wala lu ñu leen di laaj lu jëm ci ñoom kon xam naa ñu gàttal kàddu yi rek eh, jël kàddu gi jox ko sëñ Fallou Mbacké eh, su ko defee mu eh, àndak ñun ci yi nga xam ne tey moo waral tey jataay bii ñu ñëwoon fi bisimilah sëñ Fallou. asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi sant suñu subhanahu wa taala di nuyu mbokk yi yëpp. ak fu ñu mën nekk rawat nag waa daayiram xalma xidma diaspora di teg nuyoo bi loxo si Assane Diop mi xam ne moo fi teewal ñoom ñëpp rek mu jarat ni ko ci bokk yëpp rek ñu ngi fii ci armeel njëkk yi kanamu jumaa ji ci margo bi ànd ak si ak sëñ Muxtaar Kan ak mi nga xam ne kenn ku ne xam na ne yàgg naa taxaw barab bi lu jiir sax sëñ Saalix di jox ndigal waaw waa Moukhaddamatoul Khidma ñuy taxawee fii ñoom nag Moukhaddamatoul Khidma bi sëñ bi joxe ndigal tam la sax mu joxe ndigal mooy ngir bëgg ñu def ci ak ceetu koo xam ne dana tege ci leeraange ba képp ku fi ñëw ñu xam fu mu jóge ak yéen am la faatoo ak ndax ku méngoo ñu denc ko fi la wala déet ak yëpp taxawaay yoo xam ne daal barab bi laaj na ko bii mu ko defee itam joxoon ndigal ñu woy nekk ca loolee suñ bon dimbale ñu ñu taxawal ko ak i ñaanam ñu soobu ci liggéey boobu nañ ko njëkk defee nag mooy kenn ko xam ne lu jiit loolu barab bi ndax jëkk moom mi ngi daan dox am ñu fa daan nekk si mu rabi jóob mi man teen daal xëy na xam na ci lu bari mook seen du jóob yàlla yàlla yokk leeram ak njëgalam ndax ku ci àggasoon la moom itam mun ñu teew ci fàttalikuñ ko kon daayira bi kon nam defan boobu rek mooy daal di woo ñi fi bokk leen nekk te wax naa léegi am na ñu fi nekkoon ñu doon def mooy ñu doon sang ak ñi daan jaay parkaal yi ak ñi nga xam ne ñoo daan gas ñu mën doon ñëpp kenn ku la liggéey ñu boole ñoom ñëpp daal toog ñu waxtaan daal tënk mbir yi ci genn anam ba nga xam ne dana nasu benn xëccoo dootul am yàlla dafa dogal nag daayira bi am na mu doxe séddale ci ay commission yu bari yu wóote ci yàlla ko commission bi ñu bokk féetoo bii liggéey moo tax ma ubbi kàddu gi rek bi ñu nosee lii ba noppi tam fu ñu dañ fa teg ay jëwriñ muy nekk ci margo bi ak ci bàqee waaye gannaaw fi nekk ci margo bi Abdoul Sëñ Sëñ Modou Sène Bilal mi moo féete nekk ki coordonné liggéey bi di saytu machine bi d'ailleurs bi ñu def mooy boole ñoo ñëpp toog a ñoo waxtaan bañ déggoo ci genn kàddu ñu xool ku ci ne la yàlla ca moom mu proposé ñu jàngat ko ba déggoo ci tënk ko mu nekk onze mille xëy na si museen dana ci laaral daye bi tam jëlaat ay nit boo margu rekk la waaye léegi tax ba gën a yaatu ba siñ siidi muxtaar ñëw toogee toogee jal bi yàlla yàlla yokk ay leeral moom itam daal di ubbi bàq ya daal di wax ne fii nañ ko fii nañ ko may ne ba ci kanam daal di fi daal joxe ne bu ñu daal tëj fi boo kon daal di ubbi bàq ya bi ma joxe ne bu ñu bàq itam kon xam kon li bi ko daa war a gën a yokk ñu gën a ñu defaat noonu defan tam toogaa waxtaan ak ñoom bañ saytuwaat ko tam seet nu gën a yàlla ñu déggoo ci ñun ñëpp daari nag wut ab lim boo xam ni ñoo administration bi yaakaar naa su fekkee juuma su ma juuma si si mursi bu ñëw dana ko leeral bu laale onze mille fi muy dugg dana ko dana ko leer laale ma xam ne ma jël na engagement wax ni war naa mat seize personnes yoo xam ne moo leen fay lan lañ fi def ñooñu am na ci quatre personnes yoo xam ni ñoom nettuwaaye barab bi rek moo leen tax jóg ñaar ñi fii lañ féete muy wane yi nekk ci Touba waatuwaay kenn defan ko fi ak wana yi nekk fii ci mar jim margo bi ñaar ñoo di ko def bu set ñaar tam nekk dee ci wàllum garaña garaña itam nga xam ne ne bu dee bëccëg day dox moom itam fii am na deux fii am deux bu dee ci wàllum euh, secrétariat bi mi ngi ñu ko téeméer administration bi mooy itam fii am na deux fee am deux loolu defe naa kon waxagul naa douze am na itam ñaar ñoo xam ne ñu si bureau si liggéey bi kenn nekk fii kenn nekk fële ki si bureau si mooy xool machine bi ki fi dugal ba sàmm la dugg balaa génn te mu xam te condition yu leer bu dee feer tam am na ku nekk ci biir baqi jëmmam nga xam ne moom la muy def mooy waa biir ba jëmmam ku ñëw ñoo ñoo ko tegal ticket jox ko ngir ñu war koo denc kooku mooy saytu ba xam kii barab sàngam la jëm ak ndax sart sart yi nga xam ne daje na ci ñi war a gas gas bi mën na wala matut kooku itam moo moo si biir lépp kon loolu kon boo ko walee muy ñaata kon muy katoos am na ab imam boo ne moo féetewoo bàq ya di fa jiite julli juróom ak ajuma ja am na fii itam koo xam tam moo am na koo xam tam moo féetewoo fi yor rajo bi loolu kon mooy siis yi muy kat yoo xam ne ñuy nettoyé jumaa di ko di ko ñuy fii margu bi ak bàq ya kat nettoyage ak dafa naa du jër wax leer na du jër muy kiyaat ak kat ak kat ak kat boo ko lépp muy siis su fekkee leerul xay na dañ gën la benn jëme jamono incha allah wala suñ seen ñoo gën koo leeral kon xam naa kon seen dama la jox li des nga leer ak ginnaaw yow yaa ñu wutu fii ñun ñëpp yore liggéey bi ñun lañ ci war rek mooy saytu gi maximum taakal mi mbokk liggéey bi nga ne saa bu dara xewee ñun ngeen njëkk woo ñu def ci taxawaay yéen ci war taxawee ànd ko bokk teel bi yëpp kon dañ lay jox rek nga leeral liggéey bi ni muy doxee fii ginnaaw yow lañ dégg nga féete nga wutuñu fi. asalaamaaleykum wa rahmatullah leen di nuyu yéen ñëpp leen siyaar ci turu sëñ Fallou Mbacké ak Matar Kane leen di siyaar yéen ñëpp ah, liggéey bi nag ni muy demee fii mooy maanaam comme ni ko sëñ Fallou waxee rek maanaam néew bi nga xam ne nii mooy war a ñëw fii ci barab yi bu ñëwee dina fekk ñaari gardien kenn mooy fanaan kenn mooy kenn mooy fanaan ñeenti fan ah, su wàccee keneen fanaanaat ñeenti fan soo ñëwee ci buntu barab bi dana laaj carte d'identité laaj la certificat de décès door door réservoir sa néew boo duggee boo demee ba ca morgue ba dina xool dina nemmeeku néew bi ba xam nu mu nu mu ñëwee denc ko soo xëyee soo xëysee pour laaj sa néew na ko nemmeekuwaat ba xam nga xam sa néew nan la fanaane mu door la koo jébbal loolu pour leeral suñu liggéey rek lañu koy jubloo su ko defee nga ñëw ci bureau bi nag carte bi nga xam ne nii moom nga fi bàyyi woon moom ngay présenté ak certificat de décès bi nga déclaré sa néew ñu laaj la ñaari junni ak ñaar téeméer maanaam onze mille francs onze mille francs yi bu ñu la ko laajee ni ñu koy séddalee euh, mooy nii maanaam juróom-ñeenti téeméer nañ ko ci génne xot ci càngaay waaw nañ ko ci génne xot ci càngaay maanaam juróom-ñaari mètre percal yu ànd ak ñaari parfum ak saabu ki la ñuy waajal néew bi muy juróom muy quatre mille cinq cent su ko defee ñu yëkkatiwaat ci ñetti téeméer fay kii sang néew bi muy six mille ñu yëkkatiwaat ci ñetti téeméer fay kay gas barab ba muy huit mille ñu baat ci téeméer ma wax ndànk waaw ah, fay fay fay kiy ñëw fay kiy ñaw maanaam maanaam maanaam jàngaay li ah, su ko defee muy muy mu ñaata ñu di bàyyi fi cinq cent pour morgue bi yaakaar naa 11000 yi war naa mat su ko defee yow ci sa bopp soo waajee ba pare dañuy boole juróom-benn téeméer jox la ko muy tableau ba nga war a jënd bàq ya ak barab ba nga war a fay soo yeggee. nga joxe ko ak certificat décès ak sa déclarant bi nga bi nga jëlee woon fii daal ñu dox la sa tableau nga dem boo demee di nga fa fekk ku ñuy wax alhaji jéey moom moo yore mooy saytu mbirum maanaam barab ba kakay gas barab bi ndax sëñ bi dafa waxoon ne kii gas nañ ko nañ ko tàggat barab bi mondial di féete penku di jublu penku di xóot ni mu war a xóote ñu di ko def ni mu bare kooka loolu lay dox sàppe sa nga xam ne ni moom la ñuy sàppeel néew yi moo koy jubbanti def ay kordam ay buum yoo xam ne da koy da koy tàllal ba ba barab ba mën a baax su ko defee maanaam ci mbirum gardien bi mbirum gardiennage bi fii ñaara fii fanaan ñaara ko yor bale bi ñett a ko yor rajo yi kenn ko yor yaa ngi dégg boo demee baax ñaari secrétaire ñu ngi fi ak man fii man soo demee baaxee di nga fekk ñaari secrétaire ah, ak benn superviseur ak ñaari gardien ak benn balière boo demee ba baax yi loolu nga fay fekk su ko defee maanaam su ko defee maanaam euh, suñu onze mille yi su ko suñu suñu ci frais la ñuy frais mille cinq cent moo ciy des moom la ñuy garder fii mille cinq cent yi ñuy garder fii nañ ci nañ ci wut juróom fukki nit ak juróom benn yi nga xam ne nii moom laa lim nañ ci wut liñ ci war li ñu warloo ñoom par weer wu ne nañ ci huile de France nañ ci fay internet ñaari ñaari ñaari ñaari payoor internet bu nekk treize mille nañ ci fay courant yaa ngi dégg loolu ci mille cinq cent yi lañ koy fay huile ci yi waaw ah, jafe-jafe moom bi ciy jëkk mooy wàllu sangam moom sangkat moom dañ koy jafe léeg-léeg dañuy am jafe-jafe sangkat ndax dafa mel ni dafa doon liggéey boo xam ne ni yombut ñëpp di ko def di nga di nga am koo xam ne sax dina ni dafa bëgg a ñëw doon si sangkat waaye bu demee ba ca kanam day leen sibaat ne sa sama doom nee na ma du sang wala sama sët sama sët nee na ma du ma sang waaw su ko defee waaw waaw liggéey bi foofu moom am nañ ko jafe-jafe. bu mel ne démb tam fësal nañ am yéene indi fi ay corbillard oto. waaw waaw waaw yooyu xam naa mel na ne murid yi bëgg nañ. waaw euh, daal mu gën a taw féexee. waaw ba oto yooyu mën a am ci moomeelu daayira bi. waaw loolu bëgg nañ ko lool waaw naa ne bu ñëwee dana doon loo xam ne dana jàppandal ci daayira bi dina baax lool ndax léegi néew bi nga xam ne nii moom lañ indi fii fereem mooy ñaari junni ak ñaar téeméer ñaari junni ak ñaar téeméer nii lañ koy seddalee nañ ci xotti càngaay juróom-ñeenti téeméer juróom ñaari mètre percale yu ànd ak sa ñaari parfum ak saabu nañ la ci fayal ki la gasal barab ba ñetti téeméer nañ ci jëndal ab ñetti téeméer la fayal sàngkat bi ñetti téeméer nañ la fayal ñawkat bi ñetti téeméer morgue bi dina nañ fi téye ñetti téeméer loolu mooy onze mille onze mille loolu la war a liggéey waaw léegi su ko defee soo jógee fii booy dem bàq ya onze mille yi huit mille la laaj moom la ñuy garde fii mooy mot li li ñu def fii 3000 yow yaa koy yóbbaale bàq yi mooy fay tableau ba ak barab ba mooy 11000 yow moom loolu lay liggéey. waaw suñu Modou Sène ni mu ko leeralee rek nga xam ne bu fi nit ñëwee li njëkk def ci moom mooy am lu ñu wóorloo ci moom ci mooy ko fi indi bàyyi fi carte ndax ki faatu mu nekkatu fi moom dañu koy taxaw rek su ko dee su ko bàyyi ci la sukkandiku ngir man bu gënto mën koo topp ak ak ay adresse su ko defee ci la sukkandiku. xam ba xam bi bu dee bu bu dee bëccëg gi wala guddi gi ak heure bu ñu ak lam laaj rek ci lañ koy def su ko bala ñu denc néew bi dañ ko laaj ba xam kan la lan moo ko faat ak ci la faatoo ak fan la dëkkoon foofu mafication waal di waxaale ñi nga xam ñu dëkk ci biir Touba chef de village yeeg délégué quartier yi su am néew amatee fa ñu dëkk di bindoo kayit nañ xam certificat de sida mënut a ñàkk ci am néew ñu ko ñu ko bàyyi xel ku ko laaj ku ko laajte mu dimbale ko ci bind ko aw kayit li muy wane rek mooy fii la dëkkoon rek ngir bu ñu topp mën koo topp ndax fi léeg-léegi ñu topp nit ñu berab sangam dëkkoon ci doo am ci doo am sukkandikukaay yu leer te boo bëggee mu gaaw suñu la waxee quartier bi da nga xam ndax fi am ñoo xam ne léegi maîtrise am ñoo xam ne sañ mën nañ fa sañ si bu yàggul fan dëkk sa duñ ko xamagul bu baax loo ko ñu ngi sàkku waale ku ñu dégg ku ne rek mu bàyyi waal ci xel su ko defee itam su loolu weesoo ci lañ sukkandiku daari jublu ci ay mbiram nag bu ko defee moom li muy def kon mooy bàyyi fi onze millions dafa seen leer na ko waaye foofu li mu fi bëgg jàngat rek mooy ñu xam ne kon onze millions yooyu kon Moukhaddamatoul Khidma leen rek la ci am muy missions yi fi des Moukhaddamatoul Khidma moom du ab commerçant bu jaay bu jaay ay percal naa ku génn fi gis ñuy jaay percal ñu ngi foofu dajaloo gasut gaskat bi waxoon naa sànq ne la bi leen fekkee dañu waxtaan ak ñoom ñëpp benn par benn ngir kenn ku ci ne ci ñoom ñu déggoo ak moom mu ñu doon sang ak ñuy gas kon mu xam ne moomu mu sànkat yi moomul gaskat yi jaayut ñëwkat bi tam noonu talloo yi itam noonu donte am na yoo xam ni ñu ngi ko jaayee bureau waaye lu ci dañ ko organisé ba mu tegee ci woon ba nga xëccoo dootu am maanaam fi nit mën naa ñëw kon ñu waajal ko ba mu dem ba bàq ya ca du ca du seq bu xadmat xidma dara du seq ak bàq ya dara ndax du fi bàyyi benn ñett boo xam ne mooy des ngir mu wax entretien bi ca li ñu entretien bëri na lool ndax wax naa la ne engagé nañ lu ma seize personnes yoo xam ni administration bi la ñuy doxal ñu deen fay di def ay entretien ndax jamono kenn xam dafa ubbeeku léegi def lépp lépp ci entretien lay dox monsieur gis na ma nga bàq bi ne bàq itam da ngeen ko da ko fa gis dañuy nettoyer itam barab bi dañuy def lañu ñu war def maanaam def entretien ci machine bi dañ ko war a di def transport même itam mbalit mi dañ ko war di fay di ko tuuri ne kon mbalit di kon noonu lañ ci taxawee xam na ko tax météo yu wér yi daal jël nañu ko mu mel na kon. baax na lool ko suñu asan jotaay bi ndax mel na ñu bëri ñu ngi ci laaj di wax onze mille yi ñu dajal ci bàqee war naa ma yóbbu xam xidma kon ma di la xamal ne kon ak ak képp kuy dégg suñu kàddu nga xam xidma yoonu mu newu ci mu xam xidma li mu li muy def daal mooy nos ko rek ba nga xam ne lépp woon si si si moo tax feddi loolu bi mu bi bàqee ci loolu la ñu dox kon moo fi des te léeg ne ko may desal ndax te suñu naa tudd ñaari misaal te su fekkoonte ne wala ñett su fekkoonte nit dafa dëkk ci dëkk bi wàcc liggéey fi wax koñ boo xam ni am na foo ñu néegi ni di fa waajale moom day ñëw def datamp bàq yo ñu denc ko dara du ci war dara du ko war du ko warloo ak ñu ñi saytu wàllu googu léeg-léeg tam nit jóge ci bitti itam fekk ñu waajale ko fa wala mu laaj wala xëy yooyu bëkkewul nag social bi ñu koy def noonu nga xam léeg nit day ñëw ay bokkam ñëw ne ñëw nañ ci doole xam dañ la koy bàyyee rek ñoom nga war ko taxawee te fi ne ma xam ne amul percal de dëggal nag léeg-léeg am bay dafa yàlla yoo xam ne dañuy ñëw maye ko fi ñu bàyyi ko ñoom seen téye ak baaxum ñoom wala su soxlaa ñu mën ko caa daggal su am itam tiw dañ génnewaat ci kees gi dem jëndi ko nga xam ne kon léeg ko mën nañoo dem ba weer de ñu xool limar mar bi dajale lépp lépp du mën a fay ay employé dem soobaa nu ñu def kon mu xam ma xidma jimam mooy noq ca keesam mot li leen ngir ñu mën a fay laa doon leeral rek nañ koy defee mooy ki ko fi indi wax naa la sànq ne la dana fi bàyyi ay pièces am ak adresse am yu leer ngir bi ñu mën koo topp ndax moom mooy dund ki indi mu ki faatu moom faatu na ba noppi te mën naa doon sax ku ñu xamul far boole léegi ni ñu koy toppee rek mooy ci moom la sukkandiku gëstu mu wax ñu ay firnde ñaar rek mën a am benn faatu faatu naturel wala mu am certificat de décès kon kooku hôpital lay jaari kon ñu defal kooku su boobaa dana am màndarga yu leer soo waa da nga xam kii ci ban couche la faatoo ndax dafa accident wala dafa jabet wala nangam walla dafa cardiaque wala nangam bi moo ko rey wala sibru wala lu man doon ci noonu tam lañ sukkandiku ba xam itam ndax yàlla na ñu denc ko fi ndax sukkandikuwaale ba gëstuwaale lan moo doonoon mbiram li mu doon yëngatu dañ ko dañ ko xamaale ndax léeg-léegi ni daa faatu dog dog kepp waaye li mu doon liggéey ba faatoo ci dog dog su ko defee léegi kon ci loolu dañ dañ ubbil ay buntu ci dem sax ba léeg-léeg nga dégg ñaan génne nañ ak góor jigéen ci yooyu la jaare ba man koo ba man koo xam ndax ni soo jàkkaarloo ma ñaar rek ca xam li ngi def rek yaani booy waxee moom rek da nga ci mën a jàngee dara ba ci sukkandiku waaye ma santaale itam nag bokk teel bi yi nga xam ne itam saa bu ñu déggee itam loo xam ne yëlawut barab bi ñu gaaw woote ñu ngi leen sant di leen ñaan tam ñu gën cee def yitte rek ci xam ne barab bi lépp ñëpp la du leen di kenn lu ci waaye def suñu tubaab ko defaloo ko kenn réussite bi mu xadam xidma moom mu xadam xidma moom ay ndaw la fi nekk liggéey suñu tubaab képp rek lañu mu xadam amul li am mooy télé suñu tubaab liggéey suñu tubaab rek asalaamaaleykum eh, waaleykum salaam wa rahmatullah eh, gannaaw bi ñu siyaare jiital ci siyaar bi sëriñ Tuubaa Cheikh Maodul Muntaxa eh, siyaare sëriñ Afi Busaal imam tey ñoo ngi fii tey biñ xëyee ñu doon xëyal ab siyaar ak euh, dox ci euh, armeel yi nga xam ne mooy armeel yi Baxiya njëkkee ko ca Marga ba ànd ak sëñ fàllu Mbacké ak suñu waajur euh, sëriñ Mouhamadou Habib Diop biñ ñëwee fii itam ñu ngi fi fekk sëñ Makhtar ak sëñ Abdou Bakhoum mi nga xam ne ak waa bureau bi nga xam ne ñoo seq liggéeyu Baxiya Baxiya nag moom mm, ku ku nu dégg dégg da yàgg nga dégg suñu tur ci buñ masaan yëkkati suñu kàddu ci lu jëm ci daayira muxadamatul xidma ni ñuy tuddee màggal gi wàccaay di ko tuddee eh, koor gi muy san ramadan di ko tuddee ci entretien ak setal noonu la ñuy tuddee baqiya ci eh, suñu appel ci képp kuy jàpp ci daayira bi tey nag ñu ñëw taxaw ak Sëriñ Abdou Bakhoum doon kenn ci ñi nga xam ne ñoo nekk baqiya eh, ñu séq ak ñoom liggéey bi mu mel ne tey ñun suñ teewaay dafay teewal waa diaspora yépp Euh, xam naa tey moom euh, dolliku nañ bu baax ci ay leeral yoo xam ne tey képp koo xam ne daa dëgg liggéey bi daayira bi yor ci bàq ci diggante bàqee ak margo bi euh, yaakaar naa ne leeraay gi tey kenn ku ne dëgg na ci lu lu am solo loo xam ne mën na koo gànnaayoo kon sëñ Abdou tey sëñ Assane Diop mi teew dafa mel ne waa ba waa waa diaspora yëpp rek ñoo ñëwoon tey ziyaare si ñëw. def fi ab euh, siyaar akub euh, nuyoo akub euh, ñëw rek bëgg a xam taxawaayu liggéey bi yéen ñi nga xam ne yéen a ko yor ngir dañoo seq liggéey bi te dañoo bëgg lépp rek muy gën jolli jëm kanam. waaw salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit mbokki taalibe ñu ngi leen nuyu bu baax a baax ci leen siyaar ci turu mbooleem daayira Muxaddamatul Xidma te di leen siyaare ci jotaay bii tey santaat yàlla bu baax ci jotaay bi. tey ñaan yàlla boroom kàtt kàttanal leen dimbali leen ndax euh, dëgg la li ngay laaj ci barab bi fii lépp loo xamante laaj ko fi euh, ci lu nu xam dina la ko leeral ba mu leer naa ndax fi ne fii li ni ñu ko waxee rek daayira Moukhaddamatoul Khidma ni mu fi nekkee maanaam saytu barab bi ci say gën di saytu te dencin boo xamante ni dencin wu dëppoo lislaam la ndax euh, barab la boo xayti nii lépp ñëpp la ku ñëw yaa ngi ci biir képp kuy wax ashadu la laa ilaaha illallaah wa ashadu anna muhammadan rasuulullaah boo ñëwee fii dana la taxaw ngeen ci taxaw ci lépp nag ci ndimbalu sëriñ bi rek ak kartanam ak ndimbalam kon bokk na ci li nga xam ni moom lañ fi tegee waa daayira Muxaddamatul Xidma du lenn nag lu dul jëmmi sëriñ bi jëmmi sëriñ bi rek lañ fi nekkee ndax euh, fii jamono toll moom lu waay di wut ak lu waay di wut lu dul sëriñ bi rek wutoo wutoo dara kon ñun man li may wax lu wér la lu dëggu ci man la daayira Muxaddamatul Xidma jëmmi sëriñ bi leen di wër fii te li ma leen di ñaanal nag ñu dajeek moom ngeen di daje ak yow mi nga xam ne yaa fi teew waa diaspora bi ak sunu waajur bu baax bi sëñ Mouhamadou Habib ndax yàgg na noo xamee du tey yow it yàgg na noo daje ci jotaay waaye kenn kenn kenn xamu ci sa mono waaye yàlla dogal na ñoo bokk parce que ndax sëriñ bi ngay wër moom laay wër yàlla na dajeeg moom ñun ñëpp ci barkeb sëñ Tuubaa ak lépp leneen looy laaj ñu ko. waa ki ki jógee ca Margo ba ak ki ak ki ak ki def fii direct dafa am benn wute bu nu wutee ki wute ki jóge ca Margo bu moom bu demee foofu ca Margo ba la ko fa waral mooy mille francs moo ko war 3000 euh, war ko fii muy 11000 mu def fa formalité am def fa léppam 11000 yi ni muy demee danoo wax ni que lii lii mooy li aju ci waajtaay bi ku fi indi ab néew. gaskat bi moo moom cent yi càngaay lii 7 mètres la saabu laj ko lañ muy 4500 kii sang 1500 kii ñëw kii ñëw càngaay li mu ko war a sàngee téeméer la. tableau bi tableau fer ak seela ko té téeméer mille cinq cent la margo bi mille cinq cent lépp boo ko boolee muy onze mille fii la ko fi war euh, trois mille francs buy kër gi ak margo ak ak tableau bi léeg-léeg sax li li tax mu leneen di ko ci waraat mooy ñaari kër yi ak bant yi boo ko boolee muy six mille bant yi mille cinq cent ñaari kër yi ak tableau bi quatre mille cinq cent muy six mille nit ñu bàyyi xel loolu loolu mooy li ci ne waaw ndax léeg-léeg da gis ñoo xam ni dañuy gas benn kër léegi lu mel ni waa kër sëñ Sohaybu Mbàkke ñoom doxinu sëñ Sohaybu gas lu ñaari kër ni waa njaarim daan dencee gas lu ñaari kër ànd ak loolu lay bant bu wutee bant yi boo seetee bant yi 1500 ñaari kër yi kër gu ne 1500 muy 3000 ak tableau bi 1500 boo leen boole muy 6000 6000 boo ko wala 8000 moo xam nga seet lim la jox kon kon loolu it lu mat di bàyyi xel la waaye bu ni dama bëgg ñaari kër rek joxe 11000 kon de doo am ñaari kër benn kër ngay am. muy li sëñ Fall daan wax jalamp moom ngay am. jërëjëf sëñ Bakhoum tey dafa mel ne xam naa liñ bëggoon a xam lépp ci kàddu yi ci li xew ci liggéeyu Bakhya ak margo bi moom leer na àdduna bépp liñ ciy dolliwaat rek mooy kàddu yu mujj ginnaaw bi ñu ànd ak sunu waajur wi nga xam ne sëñ Mouhamadou Habib Diop àndoon kook suñu waajur itam mm, sëñ di Diop kenn ku ne xam na seen taxawaay ci liggéey bi ci. Euh, seen kàttan gépp ñu def ko ci tey nag sëñ Modou ñu ñëwoon àndoon li euh, dox bi yëpp fi ñu fi jaar ñu doon rek euh, bëggoon laaj itam yéen ñi nga xam ne yéen a ci nekkoon ba tey liggéey bi egg si fii yan kàddu daal nga ñu ci dollil yoo xam ne day doon kàddu yoo xam ne kàddu soññoo lay doon it ndaxte liggéey bi moom daayira bi lim soxla wax nañ ko kër ca kër sëñ fi lañ ko tàmbalee woon bin ñëwee fii itam leer nañu naññ léegi diggante onze mille francs yi euh, li ci war lépp biñ ko génnee mille cinq cent moo ci des mille cinq cent yooyu bi ñu xoolee seize personnes a ngi fi yoo xam ne ñoo ñooy ñi ajoo liggéey bi ci diggante ñaari barab yi bi ñu xoolee mille cinq cent yooyu tamit euh, kenn ku ne xam ne ne bu doon solde boo xam ne booy jox nit la mille cinq cent yooyu mataluwul sold yooyu ba keesug daayira bi mooy joyante lépp kon képp ku nekkoon diaspora rek te daan dégg sa appel ci li jëm ci bàqiyan ak ci koor gi ak ci loolu xamal ne sa jëf egsi na ci bërëb yooyu euh, kon dañ ci euh, jox kàddu yu mujj sëñ Modou Habib euh, suñu lancé appel nag mooy corbillard yooyu ñu soxla ñoo ngi koy tàllal loxo àdduna bi bépp ku ko man nga jàpp ci loolu lay yéene daayira bi tam suñu Abdoulahat secretaire général wax ko muy lay seen yéene suñ ko mënoon Euh, la xew fa Makka ak Madina mooy képp ku wàcc ab liggéey borom néew ba dara du ko ci war loolu daayira Muxaddamaatul ma soxla na ko des nañ ci tàllal appel àdduna bépp euh, loolu bokk na ci euh, li nga xam ne mooy yéene yi man nag ci samay soññee bopp ak sama soññu sans bopp soññu ñëpp maa ngi gën a fàttali fettali fettaliwaat di fàttali ñëpp ñu gën a jàppaat xam ne liggéey bu rëy a ngi fi kor bi yaa sax lañ wax waaye man la ma cay dolli mooy ay mini bis ak ay oto yoo xam ne day bàggante ci diggante ñaari barab yi ci moomeelu daayira Muxaddamaatul Xidma asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa mbokki taalibe ñu ngi leen di siyaara tey ñaanal seex Muhammadul Muntaxa mu yàgg fi lool moom njabootu seexul xadim gépp ak sëriñ xaafe mi mu teg loxoom liggéey bi ci loxoom ak ñim ko séqal ñëpp ñu ànd liggéey liggéey bi yal na sëñ bi gën noo doole ndimbali bu baax a baax a baax ba ni ñu ko bëggee nu ñu bëgg liggéey bi rek ñu am kàttan guñ ko defee ba mel noona ba mat sëkk te mu dëppoo ngërëmal sëriñ bi te seytaan bañ ci am wàll yàlla sëñ bi gënoo dool ndimbal bu baax a baax a baax yow Assane e, ak ku fi teew ku mu doon nañu gën a góorgóorlu baax a baax a baat ci liggéey bi sëriñ bi santaane ngir day mel ne Seexul Xadim moo ko sant dongo yi Seexul Xadim mi fi teew dongoom yi fi teew tey ci di di liggéey liggéey bi kon nan jàpp ne sëriñ bi la ñuy liggéey liggéey bi bu ko defee képp kenn ci mbooloo mi ku ne war a jàpp yow yaa war a liggéey liggéey bi ba mu ànd sa kàttanu kese bu fekkee sa kàttan mëtu ko it ngay def sa kàttan def def sa kàttan ba fam mën a yem keneen tàmbalee foofa di wéyaat nun ñii di waa dëkk bi di tuubaa nag àll bi jàmbaar lañ lool ñi ngi liggéey bu baax ni àll bi liggéey waaye nan nan fexe ba bu buñ dikkee fekk nun liñ def li ñu war lépp nu def ko bu ko defee ñoom it dañu àggale rek kon waaye buñ fab jàpp ne rek lépp àll bee ko war a liggéey àll bi jàmbaar lañ ñu ngi liggéey ñu ngi góorgóorlu baax a baax a baax waaye nun nit nan def la nu war loo xamante ne ndax du nun la sëriñ bi xéewale nu di dëkk ak moom ñee ci àll ba ñenn ñi fii lañ jóge woon dem ca toole ñenn ñi ngi dëkk feneen waaye nun la sëriñ bi xéewal nag nu dikk dëkk ak moom fii dikk ko liggéey liggéey bi am na liggéey yoo xamante ne moom boo yónnee koppar dana ko mën waaye am na liggéey yoo xam ne jàkkoonteeg pënd ba ak jafe képp moo ko moo moo moo ci war murit bi kon nañ ci gën a góor góorgóorlu baax a baax a baax yàlla sëñ Tuubaa gën a dool ndimbal baax a baax baax mu ca xewal doonte dañuy jàppaloo di lu lu kenn mënta yëkkati mbooloo mi dikk jàppandoo ko ñëpp yëkkati mu jëm koo day jëm ca kaw noonu ko Seex Ahmadu Muntaxa doon waxe du laalati suuf mukk waaye mel mel mbir moo xam ne kenn ku nekk xam nga ne am nga ca wàll boo dikkee xëppati sa wàll yenu yóbbu bu kee dikkee gàddu wàllam yóbbu yenu yóbbu bu kee dikkee gàddu wàllam yenu yóbbu bu ko defee day mujj rek mu mel nañ ko bëggee wasalaatu wasalaam euh, sama dañaa am di Diop mi ma daan àndal nuy liggéey liggéey bi it sàkku naa ñu fàttalilu fàttalikul nu ko dolli koy ñaan moo julli yam fekk barsàq yëpp ndax nun noonu la moom la doon àndal mu di du yónni nuy doxe yónent yi nu ci dox yu bare bare bare bëri ba ak si ci fii tey gannaaw ga it Assane mi ak ñeneen ñi xamante ne ñoo ne ci àll yëpp lañ ca man ña ngi koy def lañ ca mënul ña ngi koy jéem nañ góor góorgóorlu daal ba mu mel ni ko sëñ bëggee te seytaan bañ ca mbàll barke borom Tuubaa